ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد دوم آدم لسن مرمي هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه مطلع على الإنسان لا تخفى عليه خافية فلقد وكل الله ملكين من ملائكته الكرام أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات لا يفارقان الإنسان إلا يوم القيامة حيث يكون كل إنسان شهيدا على نفسه يقول سبحانه وكل إنسان, إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ليعرف المؤمن كل أن كل كلمة وكل عمل محاسب عليه حسابا دقيقا فيجب عليه أن يراقب نفسه لأنه أي المسلم كما وصف النبي قال امسك إيه عليك لسانك وابكي على خطيئتك هو صلى الله عليه وسلم يحذر من أن ينساق الإنسان لسان المرء وراء هواه وانفعالاته سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير فقال بلى قال الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة المرء في جوف الليل شعار للصالحين ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى قال الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال يا رسول الله بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأثار إلى لسانك فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال ثكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم أسلم بن أرخم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أوصني يا رسول الله فقال له تملك يدك قال فماذا أملك إذا لم أملك يدي قال تملك لسانك قال فماذا أملك إذا لم أملك لساني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبسط يدك إلى الخير ولا تقل بلسانك إلا معروفا كما وصى النبي أبا ذر قائلا عليك بطول السمت فإنه مطرد للشيطان وعون لك على أمر دينك فقال زدني قال وإياك وكثرة البحر فإنه يميت القلب ويحب من نور الوجه فقال زدني يا رسول الله قال قل الحق وإن كان مرا قال زدني قال لا تخف في الله لومة اللائم ثم قال زدني يا رسول الله قال لا يحجزك عن الناس ما تعلم من نفس عن نفسك وفي وصية وصية أخرى لأبي ذر قال ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما قال بلى قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فهو الذي نفسي بيده مع عملت الخلائق بمثل خلائق بمثلها واللسان تطالبه أعضاء الجسم بأن يجنبها المعاصي والذنوب لأنه سبيل إلى غضب الله فلقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تذكر الاسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إذا استقمت استقمنا وإلا فلا ومن هذا طالب الإسلام المسلم بمحاسبة نفسه عن كل كلمة يفوه بها هزلا أم جدا فيجب عليه أن يقول الخير وإطلاق اللسان بذكر الله تعالى يقول سيدنا المصطفى صلوات الله عليه وسلامه لا تكثروا الكلام بخير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلا ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية وحين يطالب الإنس لا يسلم المسلم بالصمت يطالبه بنفس في نفس الوقت بكلمة الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الجهاد كلمة حق إلى سلطان جائر كما طالب الإسلام بالشغل اللسان بذكر الله سبحانه يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والذاكرون الله في فضيل مستمر لأنهم مع الله بلسانهم وقلوبهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل بقوله مرت الليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش وقلت أهذا ملك أهذا نبي قيل لا قلت من هو قال هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر ذكر الله بقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقهم أعناقكم قال بعد قال ذكر الله وذكر الله ليس باللسان فحسب بل إنه تدبر لقدرة الله في كل أمر من الأمور فينظر المؤمن بعين البصيرة إلى ما أبدع الله سبحانه في هذا الوجود إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فذكر الله هو الاتصال المباشر بين العبد وخالقه روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثر لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا qaala aktaruhum lillahi tabaraka wa taala zikran salaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah bu dul lor kenn ci sa làmmiñ doo lor kenn ci sa loxo ñëpp jullit ñëpp wóolu da yow mii lu baax rek ñooy yenn jullit ñi kookoo di jullit moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax am na saaba bu ñu wax oqbatu oqbatu nu amirin dikk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na may def ba mucc mu ne ko dénk naa la soo làmmiñ deel jooy waxtu wu nekk ci li nga def ci lu bon loolu moo di lan moo di yonent bi day tere ne day bañ kenn ku ne ànd ak soo làmmiñ rek ne mberet mberet yi fu sa bànneex jëm nga jëme foofa fu sa mer wala sa ba sa sa sa sa bégte jëm nga jëme ko dafa ngay seet dëgg di ko wax am na bu ñu wax ma asib ñu jabalin laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg wax ma jënn jëf loo xam ne su ma ko defee mën a dem àjjana loo xam ne dana ma solitam sawara mu ne ko yaa ngi laaj lu wéeree waaye lu yomb la ci koo xam ne ki yàlla yombal na ko ko da ngay jaamu yàlla bu baax te doo bokkaale moom dara da ngay taxawal waxtu yu juróom di natt asaka di war ramadan di aji màkk soo ko mënee daal ne ko teema laa wax sax bunti yu ba bunti yu yi mu ne ko ajje mu ne ko woor ab pakk la boo xam ne dalay fegal lu ne lu bon lu ne saraxa itam day fay day fay ak ah, def lu bon day fay bakkaar ni nga xam ni nii la dox di fayee sawara julli ci lii itam dëkk ba ñëpp tëgg nga jóg tabar di julli loolu itam màndarga bi ju mbaax ji la daal di jàng laay ji ko suñu borom diglee daal ne ko téema laa wax li nga xam ne moo boole loolu lépp nga xam ne mooy bopp mbir mi di digg gannaawam di jegenu affaire bi mu ne ko ah kay wax ma ko lu mu mu ne ko al jihaad fi sabilillah jihaad mooy teg sa bopp lu ne loo xam ne lii luy jëriñ lislaam la luy yëkkati lislaam la luy jëriñ bi defi la ngay te sa bakkan ca teg ko sa bakkan te kenn fa siw lañ ne ko gannaaw bi yonte bi ne ko te ma laa wax sax li gën a boole lépp nag téye mu ne ko ah kay wax ma ko yaa rasulallah mu ne ko téyel sa walla bi téyel sa lii daal daal di joxañ lamiñ fa baaraam teg ci aw lamiñ maasur ni jabal ne ko yant bi fii mu ne li ñuy wax lépp yàlla dana nu ko jàppe mu ne ko wattan ni ko lu war yàlla dana sa day tawte lépp amul kenn koo xam ne kii da nga dem ca safara te dara yóbbu la ca te du la ci yóbbu lu dul sa say wax loolu dog moo yóbbu la ci safara am na ku ñuy wax aslam nu axram laaj yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dénk ma yonent bi ne ko moomal say loxo mu ne ko waaw ah, boo moomul sama loxo lu may mu ne ko moomal sama làmmiñ mu ne ko su ma moomul sama làmmiñ lu may moom mu ne ko tàllalal sa loxo di ci def lu baax te sama làmmiñ bi ci wax dara lu dul lu rafet loolu dëgg yonent bi dénk na ku ñuy wax Abaa Zarrin ne ko maa ngi lay dénk ci ngay baleel sa looy noppi boo amul lu baax looy wax ndax noppi dana fekk seytaane dana dimbali itam ci diineem mu ne ko dolli ma mu ne ko dénk naa la nga bàyyi di tex texe rey yu bari yi dul jeex ndax day rey ab xol day demee ak leer day yóbbu leer wat leeru ak kanam mu ne ko yokkaat ma dénkaat ma yow yant bi mu ne ko del wax dëgg bu la dee bu la dee rey bu la dee jëriñ lépp waxal dëgg mu ne ko dikaafu mu ne ko bul ragal ci yàlla ko la yedd wala ku la mere boo nekkee ci dëgg bul ragal kenn bul ragal ku la mere bul ragal ku la ku la yedd ko waaw ak la rati moo ne ko toogal ci sa néeg te itam li nga xam ci sa bopp mu la doy ci li nga xam ci nit ñi topp ci bànn ci ayib bi nit di wax te xam nga sa ayib bi bopp yu dul jeex te waxoo ci dara loolu na lu dox sa teg moom sa del waxtaane sa ayib bi bopp di xalaat sa borom te bay ayib bi nit am na beneen dénkaane boo xam ne bi yonte bi wax na ko benn saa bu ñu wax abadarin mu ne ko doo ñëw ma tegtal la ci yaari doo ñëw ma tegtal la yaari yaari yaari jikko yoo xam ne woyof nañu lool ci gannaaw te diis nañu lool ca place boobu demee yow ma xeen mu ne ko ah kay mu ne ko na nga rafetal sa jikko tey wàññi say wax far la noppi géej naa ci yàlla bi xam ne sama bakkan ngi ci loxoom nit deful lu gën loolu la su làmmiñ nag dafa eh, cër yim mu nekkal ci jëmi boo da jëmi adama sax dañ koy ñaan bis bu ne ne ko dimbali nu ba duñ mën a mooy yàlla nañu doomu adama bu xëyee cër yépp dañu dajalo ne làmmiñ wi de ndax ci nu ragal yàlla ndax boo jubee nu jub boo jubul du jub foofu nag kon fi la lislaam di sàkkoo ci julit bi muy wattandiku tey xeex ak boppam tey waxtaan ak boppam waxtu wu ne ci benn baat bu mu war a wax bu ne waaye doo ko gën ci gémmiñam bala ko wax na ko peese natt ko xam baat bi lu baax la wala dëgg la wala lu baax la ci jublu bu dee kaaf ak bu dee dëgg la wala boog baat bi euh, wax ji nga jëmee ko rek yi tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu leen baril ay wax ci lu tudd yàlla bu leen ko def seenu xol day ñagas te xol bu ñagas kat day sori yàlla te du ci xam dara bu leen xool itam bàkkaar yi doomu aadama yi mel na yéen da ngeen leen a yilif wala ngeen da ngeen xool seen bàkkaar bopp ni ngeen doone ay jaab yoo xam ne dañ leen ay yilif waaye yilifu leen nit ñi bay xool seen i tooñ dañ leen a yilif yéen da leen xool seen i tooñ doomu aadama nag ñaar rek lañu ku nekk ci jàmm ak koo xam ne suñu borom daf koo mbugal bu man di doon mi ngi leen di sant ne na ngeen yërëm képp koo xam ne koy gis ngeen suñu borom teg ko aw tiis wala mu teg ko ak mbugal na ngeen sant yàlla yi yépp itam ci jàmm ku ci yàlla jox jàmm wala mu jox ko sa mbokk itam na ngeen ci sant yàlla suñ boroom nag lislaam bi muy sàkku ci jullit bi ne ko na ngay noppi boo mënta wax lu baax mi ngi koy santaale sant itam ci fi saa si ci yenn wax yenn yenn waxtu wi ne ko na ngay wax dëgg suñ boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na benn baatub dëgg fe boor bu jubul moo gën jihaat ja gën a rëy kon nag suñu borom ak lislaam liñ sant doomu aadama muy wax dëgg di wax lu baax bu mënta def loolu la muy tudd yàlla suñu borom sant na loo ñi nga xam ne ñuy tudd yàlla nee leen tudd leen ma ma tudd leen tudd gu nu yàlla tudd yàlla bu ñu tuddee yàlla yàlla tudd ma na ngeen ma sant te bu leen weddi sama xéewal yi ma leen defal ñuy sant yàlla waxtu wu ne ñu ngi ci ngëneel ndax ñu ngi dëkk sunu boroom ci seeni xol ak seeni làmmiñ yonte bi leeral na ko nee na bis bu ma rañaanee jëm ci arash romb naa waaye joo xam ne dañ ko muural ci biir leeri arash bu muy rañaan maa laaj jibril day ko kii malaaka la wala ki ab yonante la mu ne ma déedéet kii di nit la woon koo xam ne wax làmmiñam waxtu wane dafay tooy xepp ci tudd yàlla ab xolam itam waxtu wane ma nga ci jàkkee ci jumaa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee leen du ma leen wax te ngeen ma wax leen li gën ci jëf yi gën cee baax fi sunu borom te gën cee yëkkati ko daraja moo li gën ci yéen joxe xaalis ak joxe wurus li gën ci dem di jaari ñi di reyee ñu deen rey ñu ne ko ah kay